tu tey nag daañu waxtaanee euh, euh, ñëpp xam nañ ni le 8 mais bi ñu génn euh, son excellence nag dafa dalaloon mbëri fële ca palais de la république ñoom nag dem nañ fa ginnaaw bi ñu fa demee nag critique yu bëri tukkee na ci ñoom surtout nag ci réseaux sociaux yi ku nekk critiqué nañu leen looloo taxoon tey ñu dem ci tali bi fële ca Grand Yoff ànd ci ak Laye Diallo ñu dem xooli askan wi seen kàddu yi nga xamante ne ni yëkkati nañ ko ci dellusiwaat ci plateau. yow mbëri moom bu la war ñu ko def moom de sall yow Macky Sall mi ngi gis ñoo xam ne am am ba seen njaboot sama see dund moom den deen woo pale ñu dañu toog fii amul nag fii yow yow fii <laughs> da ngay daa dem ñibbi ndax ndax troisième mandat moom waaw du nga ko fiy tere loolu amul problème comme loolu ñoom bi fi mu nekk nii soxna si tàng na tàng bu nga xamante ne fi mu ne nii ku ne boppam la tal euh, parce que man du ma gis fu fit na nekk ma di fa dem man woo la kon nag bu la woowee da nga dem da nga kaa war a dem wuyu ji xëy nag woo bi seen intérêt mi ngi si parce que gis naa leen defar na leen ay mutuelle ay yooyu te loolu yëpp ancien gis naa ñi ngi ko doon kaas man loolu ànd naa seeg ñoom waaw critique moom réseaux sociaux yi léegi daanaka mbedd la waaw boo defee lu baax ñu critiqué boo defee lu bon tamit ñu critiqué mieux vaut nga def lu baax ak li dal sa xel jàll jàll leneen waaw kantaan nag politique bi du mun na ñàkk quoi mais bu ñu kontaanee bu la neexee ñuy fecc sa te moom maanaam li ñuy xool maanaam seen intérêt bopp rek la ñuy doxal quoi bu ñu demee fii ne amuñ fa dara moom itam du ñu fa sonu ay Aïcha mi ngi noonu ajaratu mu mel ni nag ginnaaw yooyu la critique ñoom nag dañoo VIP yi comme ni ñu leen koy tuddee saay su nekk rek dañoo mujjee daal di def benn point de presse fële ci arène nationale yëkkati fay ay kàddu uh, ku ci mel ni Balla Gaye nag moom ne xam le ne nee na ñoom ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax parce que li am tey uh, làmb moo leen ko may kenn mënu leen jënd uh, kii di Boy Niang fekk si ko si moom aussi yëkkati ay kàddu xam le ne ñoom itam di toog di xalaat ni dañ leen di jënd sax bay ba yi di wax ne ba ñu demee ca pale ba xaalis lañ fa doon wuti loolu si yéen wul maanaa Modou Lo aussi répété la même chose que ni nit ñi seen dem ci pale ba du pour ñoom mais pour seeni i rakk yi nga xamante ne nii ay lutteurs lañ ñoom la ñu demaloon ci ci ci ci palais ba loolu la ñu bind que ni moom la wax kanta à seen nag moom nag dafa wax ñi nga xamante ne nii ñoo di manifestation yi surtout dëkk bi temps yi ni mu yëngoo ak manifestation yi fii jot a daw yëpp képp ku ci dee rek sa sa sa sa famille ngay indil ay gàllankoor. ko yooyu ñu wax tamit booleek critique yi nga xamante ne nii nit ñi critiqué nañ leen ko ci ci ci ci ci ci réseaux sociaux yu oma mu mel que ni gars yu bëri dañu fippu mer ba ni ba am ñu seetlu sax euh, bu ñuy wax dañu ne même bu làmb amee ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy bëree du président de la république du moom mooy dem feesal pale bi mooy euh, ñi nga xam ne ñooy peuple bi ñoom ñooy dem di leen seetaani moo tax su dara xewee ñoom dañu war a fareek peuple bi waruñu woon dem fële ca palais ba que yow noonu nga ko jàngatee kii man euh, le fait ñoom ñu dajawaat euh, samedi euh, di expliquer rek mooy xam nañ liñ defoon. nii gravité bi. non du sax gravité bi xam na ni. liñ defoon am na luñ ci war a jubanti quoi am na luñ ci war a jub parce que bu bu doon danoo dem ci lu normal rek jarul. tont tontu mais li may bañ rek mooy ñu def leen kuddu bu tàngee ñu ràccee leen bu seddee ñu bàyyi leen. Hmm. te daf mel ne nag kuddu la ñuy bëgg a doon ñoom. bu tàngee nguur gi wala parce que sànq day bari yi amoon ci Laye Wade di répété wu ci Macky Sall ah ji nga Laye Wade bu mu tollee 2011 lu mel ni amoon na ñu ne mbër yi seet nañ ko ni boobu ay sëñ Mbacke Ndiaye ko dox mais lan la jural mbëri ci diggante bi dara ñu ne tey jii président Macky Sall recevoir nañ problème bi du ñoom ñu dem wala ñu recevoir leen parce que ay sénégalais la mais man damay bëgg yenn saa yi ñoom ñuy bàyyi xel fi ñu jugee ak ki ñu doon. te ñu xam ne li ñu doon du Macky Sall moo leen ko def du Sam Massam moo leen ko def du ma Mademba ñu gën a am dignité mais gën di honorer seen bopp aussi tamit ci lu mu mënti doon parce que boo xoolee tey ji dem nañ fa génnaat mais lu mu leen jural li mu leen yàqal mu leen ëpp lu mu leen defaral parce que bu doon defaral na leen dañu génn ñëpp di leen tàccu am na élection législative xaw ma locale bi ñu demee bay wàcc am na ay mbër yu ñu fi photo ñu doon di dem palais ay mbër yuñ photo ñu doon lax di dem palais ci lan lañ fay demee quoi man pour man seen doylu bi moo xaw a des. le fait que mais nee na ñoom manqué wu ñu. dara non du manqué ba muy ma ba ji nga ma wax benn affaire nit dina yor million nga gën ko doylu doylu ci nit la du am am nit dina la ëpp la foofu jën la foqale sa dërëm bi nga yor mu bëgg xool na la koy séddoog yow te moom mi ngi toog ñaar fukk loolu ci jikko la ak ci doxalin te ji mbër yi li ñuy bari bari million ku ci am combat nooy def di tàllal loxo na ma diw dimbali na ma diw dimbali bu ñu paree na ne diw moo ma diw maa ngi koy gërëm pourtant ñoom ñi ñuy laaj sax ñoo leen ëppale loolu dafa bokk ci loo xam ne ñoom la main tendue da ko xaw di tàmm ba ñëpp dañoo jàpp lu ñu dugg lu ne rek daa am lu ñu ciy xaar wala daa am lu ñu ciy amee mais Sénégal nit ñi ñoo war a am fulla nit ñi ñuy topp seen ginnaaw di supporters yi wala amateurs yi parce que tey jii waykat bu fi taxaw fii Sénégal doon dara. peuple bi ñoo la ko def mais est-ce que ah peuple mos nañ am benn problème ba kenn ci ñoom jóg. bañ na ko ba boo leen laajee ci interview sax pour ñu wax ci actualité politique dañ lay wax. duñ ci wax duñ ci wax waaw. Ah. Hmm. pour fu Koli Kalidou Koulibaly mënoo bind ab poste wala benn Abdou Diallo. Hmm. di mettre lu li xew Sénégal jëluñu ci position mais di ko mettre lu di ñaan jàmm Sénégal pourtant ñooñu liñ am bitim réew lañ ko amee. mais fu réew mi jaaxle di nga gis ñaari joueurs yu équipe nationale yu génn mm. bokk ak nit ñi seen naqar mais bu nga gis mbër mu ko def wala ab waykat ko def xale yi topp seen ginnaaw di lambar lambar yi man amul lu may wax bëri mais xale yi topp seen ginnaaw di nga ko xamul li ngay jar nga xam li ngay jaay sa bopp ji nga nit ki bu dee nii lépp bu xëyee ci boppam la la ne da koy bàyyee boppam te nekk ci sa bopp mm-hmm. man loolu laa gëm. booy topp seen ginnaaw nan am fulla ak fayda te xam ne ñii ci seen bopp la nekk. ñu bàyyi leen seen bopp. vraiment dëgg yàlla euh, njiitu réew ku mu woo nga wuyu ko njiitu réew ku mu la ku mu woo rek même bu la fekkoon ngay neloo nin la wuyu Macky la wala dara da ko dem situation dëkk bi déedéet loolu dara nekku ci ndax ku ne ak da nga bëgg a def rek mais ku nu woo nga wuyu ñoom bi ñu demee liñ seen lan lan fa doon def xam nañ ko te bi ñu génnee tamit waxaat nañ seen wax wax dëgg yàlla man mii sax man mu toog mii nii tey bu ma bu ma Macky woo woon ma dem wuyu ji wax dëgg yàlla même nu euh, situation ak koo mënti àndal bu la njiitu réew woowee wax dëgg yàlla di nga dem wuy ji te ba mu leen woowee it wuy ji nan mm. te dégg déggaat nan li nu wax te mbër yi du kenn koo xam ne rek am na ci euh, position boo ci yor parce que ku ne wax nga li nga war a wax déggul naa la ñoom ñëpp jàppale président Macky Sall am am ñu ko wax mais am na déedéet Modou Lo waxul loolu Eumeu Sène dafa wax ci affaire li nga xam ne moom moo di ëmët yi am fii déglu euh, mage ni ngeen di déglu ñëpp noonu carrément dañuy jàppale loolu kay maa ko déglu nañuy jàppale Macky Sall bi fi nekk ba keroog mu fiy jugee gis nga euh, euh, kii ku ne ak déedéet mais mage ku ne ak sa position ki nga bëgg ku ne ak rek ki nga bëgg ku ne ak ki la neex nga di ànd ak moom mais bu du du du caagan ni ki nga xam ne da koo bëgg rek ñu ni kii wala koo bëgg ndax la nga bëgg ko waroo woon a dem ci leen ñu jëla xas wala ñu jëla saaga mm. ku ne am nga position boo war a dem mm. nan bàyyi loolu di xas nit ki wala ñuy wax nit ci bon loo xam ne euh, président de war ak ñu commencé lu tax def lii wala ñu ku ne am na koo bëgg tey Modou Lo am na ku ko bëgg Eumeu Sène kazalika mm. Bombardier kazalika te ñoom ñëpp a dem mem ba ci fecc mi sax am na ñoo xam ne ñu ngi ciy wax lu ne mais ku ne am nga droit dem bi mais nee nañ situation bi fu mu tolloon ak yi amoon nit ñi commencé am ay jafe-jafe ce que xam nga dañoo wax dëgg ñu dem ca pale ba di fa feccek di fa riit loolu aussi <laughs> mais lan moo euh, li am ci dëkk bi mage ñëpp ko gisandoo ndax bu nu wootee sax ñëpp ñëpp ñooy tiit mm. ku ne ak sa abi maa jigéen voilà ku ne ak sa abi sérieusement ça waaw li nga li su ko wax moom wax dëgg fa yàlla ànd naa ak moom ci euh, ci nit ki euh, bu fekkente ni président woo la nga dem wuy ji mm. waaw loolu moom dëgg la euh, waaye nag dafa am feneen foo xam ne man foofu laa condamné bëri muy biñ demee wuy ji ba pare moom comportement bi fa am ak yooyu yëpp euh, feccee ak yooyu parce que man mosumaa gis benn kilifa la dafa ma wax ne ma mosumaa gis ñu invité basketteur muy nekk di sànni ay pañe mosumaa gis ñu invité footballeur ñu nekk fay dóor ay bal waaye mbër rek ngay invité. ñu ñëw nekk fa di dexale yenn yi bon dafa reetaanlu quoi ni nga xamante moom la nekk fa di tëgg ko fecc yooyu kii la mais leneen li mooy ci wàllu jàppale man jàpp naa ni sax mbër yi ñoom ginnaaw demoon nañ bay wax waroon nañoo jàppale président ci naka parce que président dafa am kàddu yoo xam ne da koo waxoon wax ni moom la Omar démarré sànq ne moom ñetteelu mandat kenn du ko ca séen léegi nag ki waxoon loolu ba sénégalais te loolu moom mooy li war a indi fitna loolu mooy li war a indi fitna ci réew mi léegi yow nga ne da nga bëgg jàmm bu ko jàppale ci lool parce que bu boobaa rek day mel ni bëggoo jàmm parce que kii moom dañ lay tegal ay waxam xam nga bu ñu demee ba mitinu bii passé nga xam ni M kii bi ñoo ko defoon. F24 daan na invité surprise teg ay kàddu président Macky Sall muy wax di contre ñetteelu mandat loolu nekk ci réseaux sociaux yi mu wër dëkk bi yépp daal di ne du ko def ne kenn duma ci seen dem ba ne pare naa du gisatuma lu fi jar njaaba njalle yooyu yépp mu wax ko fi kon boo demee bay wax. bul di ko jàppale ci li nga xam ni yow ci sa jëm bopp xam nga ni du yoon boo ko ci jàppalee nag yaa ngi jalgati jàppale woo réew mi parce que bu dee da nga ne da ngay woote jàmm jàmm dafa am lu koy indi li indi jàmm ji mooy lan mooy ku ci ne respecté kàddu yi nga xamante ni bii eh, moom nga waxoon parce que tey mënoo bind sa con sa sa sa constitution ba ne yëf yi nii lay demee ne tëj naa ko wëlbatiku yow ci sa jëmmi bopp. nga di wut mbëri yëpp ay porox ndool la rek mm. parce que ñuy génn di wax di jéem a influencer defe ni mbëri mbëri mënuñoo influencer kenn ñoom mbër yi mm-hmm. kenn lañ mënta influencer li ñu doon tey booyee leen ko def bu dutoon ak booy yi politiciens du leen soxla am na ay ponkal yu dëkk ak ñoom kenn faalewu leen amut benn booy bu leen topp mm-hmm. ñu leen gën a ponkal ña nga ca seen koñ ya écrit bu ñu dem am na ñu leen gën a ponkal du ponkalaay moo tax booy yi topp leen booy dañ leen a topp c'est parce que sama mbër nga léegi nag bu la boo yooyu toppee politicien bi ne kii moo moom parcelle moomoo parcelle Modou Lo balaa nga doon xam ni moo moo parcelle nga ne dangay dem élection ca parcelle yaa ngi dégg Balla Gaye balaa ngay xam ni moo moo Guédiawaye nga ne da ngay dem élection ca Guédiawaye élection maire yaa ngi dégg Eumeu Sène moo moo Pikine donc nit ñi dañ leen a jël def leen mbëru Guédiawaye mbëru pikin mbëru Guédiawaye mbëru mbëru parcelle di leen supporter ci loolu ñooñu nag bul deen jàpp ni dañoo ñàkk fayda wala dañoo ñàkk fulla wala xamuñu li ñu bëgg yow léegi boo demee doxal li ngay doxal ba noppi mën nga wax président de wax dëgg fa yàlla de ko ah réew mi de ngir mu am jàmm say kàddu yi nga xam ne moom nga waxoon continuer respecté ko boo ko respecté incha allahu rabbi jàmm mën naa am ci réew mi. bu waa jàmm nag ñooy critique yi ñu leen critiqué ci réseaux sociaux yi. critique yi ñu leen critiqué waaw ñoo c'est ñooñu ay soppe lañ yoo xam ni dañ leen a mere. parce que taxawaay bi nga xamante ne bi moom lañ doon seeti ñoom parce que dañ ne fi réew mi toll nii mënoon nañoo wax neneen wala ñu doxalee neneen du mbër yëpp lañ mere am na yeneen mbër yoo xamante ne bi ñi ngi ci mbir yi euh, di wax fulla ak fayda yaa ngi dégg dafa mbër waaw ñi ngi ñi ñi ngi wax loo xamante ni bii tey <laughs> euh, booy ñi ngi ciy retrouvé wu di ci gis seen bopp comprendre nga ñoom ñii nag dafa am lu leen askan wi defal parce que li ñu am yépp tey askan wi la pareen saa yi di gis nit réew mi li fi doy waar mooy loolu di nga gis nit mu nekk di plateau yi di wax wax joo xamante ni bii di waxal askan wi di waxal askan wi mais politicien bi fële lay toog xool la gis ni kii kat am na popularité day jékki-jékki rek ñëw am lum la graissé yaa ngi dégg bu ko defee nga ko di ko waxal am na ñu bari ñoo xam ne daan nañ ci kàmb googu nañ moytu politicien yi. Mm-hmm. parce que politiciens yi yu mel noonu fépp la ñuy dugg. Mm. te fu ñu dugg dañ koy yàq mais ci askan wi nee nañ dàqu dem bi mais le fait moment bu ñu ko def moo nekkul woon. non non non dem moom. Mm. dem moom heure bu ñu la woowee. Mm. mën nañoo dem mais nag nit ki amal fullaak fayda. ba bu wax jotee nga wax wax fullaak fayda mais woote moom wax dëgg fa yàlla président woo la nga dem wuy ji. man gisuma ci inconvénient nanga fay comporté woo nag moom mooy lu ñuy ñaawul. seen comportement ak après li nga xam ne moom la ñu. waaw euh, pour une fois ma rejoindre Souka ndaxte nag euh, fii ba euh, ay février 2024 Macky Sall mooy doon président loolu loolu la te njiitu réew ku mu woo nga wuy ji man bi mu koy wax mu ngi sama xel dama ne woon bu ma jëlee kàddu dama koy wax ku mu woo nga wuy ji est c'est très normal man ñun ñi tey ku mu fi woon nga wuy ji moo xam nga xam li mu lay doy moo xam nga ñàkk xam li mu lay doy li saa njoogu wax lu am importance ça dépend ci comportement ba nga fay am mais man dama ni kuy génn di leeral yow yàlla lëndëmal conférence de presse bii ñu def sax jaru ko woon noonu non jaru ko woon gis nga nit nit waaw xam nga nit boo quitté ak sa conscience man je crois que jarul woon ñuy conférence de presse dem nañu ku ne xam nga la nga fa wax ku ne xam nga la nga yëkkati jarul woon di leeral est-ce que du gars leen wax enveloppe yi leen joxaat suuf moo tax waaw mais fii dangay ngay seeti nit rek waxuma président de nit nit nit rek simple rek ngay dem seeti mu yëkkati enveloppe may la waxatuma la ak président de la république c'est très normal mm-hmm. waaw man gisuma ci benn benn benn benn problème. d'accord ah. jërëjëf Aïcha mu ngi noonu en tout cas euh, li moo nekkoon tey li nga xamante ne nii moo di actualité du week-end ajaratu ñu leen di jox dig daje rek ba alxames incha allah. incha allah ma jigéen Diop Dieng Sall li ngay indee ci amatina solo.